mi fi service nor. Nord ñun ñep dañu manko bokku nday bokku bay bañ li nga xamantene moy jaayam carte bi ndax ki fi nek di coordonner depuis mu nek fi di coordonné li yëfi jaaralu ko yon Macky Sall perte bi mi perte lu ci beuri Abdou Salam Gueye mo koy waral parce que parti bi da ko jappé kumba am nday ak kumba amul nday nga finalement mënutul wo kenn ba kenn ñew wuy si ko léegi nag loolu dañ bëgg mu dakk léegi pour jaayam carte bi am fi il faut que président Macky Sall woo ñu toog waxtaan ak ñun wax ak ñun loo xamante ne mën nañ ko dégg. maanaam pour mu recevoir ñu ñu wax ak ñun parce que li nga xamante ne ñun soxal nañu nii nii nii fi mu toll nii temb temb temb te yaakaar naa ne Macky Sall tamit soxla ne temb temb temb pour ñu jublu si jaayum carte yi. dañu bëgg mu woo ñu waxtaan ak ñun ñun ñu soog a def li nga xamante ne moom loolu la bëgg parce que dañu sonn si parti bi damm nañu tàyyi nañ te yàgg nañ liggéeyal président Macky Sall du tey yàgg nañ ko liggéeyal di jël suñu alal su suñu lépp di ko guddigal di ko bëccëgal ma Macky Sall ñi nga xamante ne soxla na leen si parti bi ñooñu ñoo nekk ak ñun